wajalilaayi maskani ca kanam ay taalibe ñoo ne ca gannaaw di liggéeyal sëriñ bi seen bëgg-bëgg mooy dëkk bu sell bi di Touba Mbacké di gën di jëm kanam ci fànn yépp bu dee wér yaram ñu ngi ci tabax ñeenti poste de santé ñett yi sax liggéey bi sori na li ci def ci ay koppar toll ci téeméeri million ak juróom fukk benn bu ci nekk. ñu ngi sant yàlla bu baax bi ñu defalee hôpital bi ci Touba Lansar ndax jigéen ñi bu ma saan toll diggante bala ngaa am am na ñoo xam ne bala ñoo am oto rek bu leen di yóbbu hôpital su seeni mbir gaawee mën nañ koo def ca oto ba kon tey bu ñu la ko defalee nii ci Touba nga xam ne foo wëlbatiku hôpital baa ngi nii macha allah tuwaar fakal la war nañoo sant yàlla bu baax a baax a baax hôpital bu mucc ayib lépp lu war a am ci hôpital am fa taxawaay bu rafet liggéey bu rafet bu am solo kon war nañoo gën a góor góorlu ci liggéey Touba Ca Kanam bi jàppaat ci bu baax a baax a baax ndax liggéey bu toll nii ñu defal la ko te laaj ñu la ca lu weer ñaar téeméer dërëm war ngaa góorgóorlu bu baax a baax. ay ambulance ñu taxaw ci jéppal ko sapeur pompier boole ca ñaari woto. yuy fayuk lakk. liggéey bu am solo boo xam ne waa Touba ca kanam ñoo ko def jëmale ko ci sapeur pompier waaye itam jëmale ko ci askan wi yëpp moom moo waral général bi nga xam ne mooy lif pompier yëpp egg gi mu ko egg ak solo ji mu am tax mu yebal fi colonel Mor Seck bii nga xam ni moo topp ci moom ak man mi nga xam ne mayor région de Thiès ak Diourbel ànd kook sama collaborateurs yi ngir ñëw teewe si liggéey bi am solo bi nga xam ni waa Touba ca kanam def nañu ko muy euh, ci volonté chef de l'État bëggoon département bu ne mu ubbi fa caserne sapeur pompier ñoom daa mel ni jiitu nañ ci loolu ndax ñoom xaaruñu état xaaruñu dara dañoo dem ci seen i volonté bopp ak seen yéene askan wi ak xam solo si dëkk bi am ak dayoo dëkk bi tax nu dem indi ñaari camion sapeur pompier boole ci ambulance foofu dinaa fa taxaw tuuti ndax dinaa wax euh, capacité camion yi toll nañ bu nekk ci huit mille cinq cent litres ku ne xam na ni huit mille cinq cent litres des camions de grande capacité yoo xam ni vraiment si jumtukaay yi état bi jënd buñ ci doolee ko mel na ne dina gën a gën a yombal suñu liggéey ñu leen ciy sant di leen gërëm ci turu chef de l'état turu ministre de l'intérieur waaye itam ci turu colonel euh, général Victor Tine bi nga xam ni mooy yilif sapeur pompier yëpp ñu amee jàngoro jooju ñu naan doye di roñoo ñu jël ca ñaar fukk ak juróom-ñett yóbbu leen toppatoo seenu paj ci anam ñi mu waree. yéen waa Touba ca kanam li ngeen nu yóbbante woon nag jot nañ ci. weer wëpp jëndu na ci pikir buñ dee dana am taw féexi nelaw ba yeewu waaye fi mu nekk buñ buñ buñ buñ waratee dikk di jalis si yaa ngi xalaat pikir bi yaa ngi xalaat santaay yaa ngi xalaat paasu taxi. docteur moom day bind rek dinu tegal. boo tëddee da ngay xalaata xalaata xalaat ba nelaw yegg sax doo ko nelaw loolu lépp metti na ñu di leen ci sant di leen ci gërëm ci li ngeen nu defaloon a ah, bëgg na nag ku nu dolli ndax bu ngeen nu dolli woon ne dana am xéewal lool tàllal nañ leen suñu loxo di leen ñaanal xéewal di leen ñaanalu lu wér ab centre dialyse ñu tàmbali ko ci dëkk bu sell bi Touba ci kanam jël infirmier yi ca war a liggéeyee yóbbu leen ñu tàggat leen formation juróom benn weer la ñoom sax xaajal nañu seenub liggéey. maa ngi tudd Yamar Diop Dieng je suis en formation dama ñëw fii stage ñu Touba Ca Kanam ñu ngi sant bu baax ñaan ngeen daj ngeen yi bi ñu tollee ci koor jaaxle woon nañ lool ngeen jàppale leen ci weer woo xam ne pikir yëpp waa Touba Ca Kanam ñoo ko gàddu dégg nga ni ko soxna si leerale ginnaaw bu ñu leen santeet ci loolu tamit centre bi nga xam ne ñi ngi koy defar te doon leen ci woo. wuy si ngeen ñu ndax infirmières yi nga xam ne ñoo fi war a faj ëllëg jëlal ngeen ñu ci ñaar ñoo xam ne ci koor gi commencé nañ di def seen estage di def formation yoo xam ne buñ noppee ñu fi ñi war a faj duñ dem di leen jëli feneen day fekk pare nañ ba pare loolu liggéeyu waa Touba ci kanam la. waaye nag sëñ Fallou ñu di la yóbbante di la yóbbante ci mbooleem askan wi nga soññil ñu leen ci ñu jàpp ci centre bi ndax centre bi du liggéey bu ndaw te Touba lañ koy defal te yëfi Serigne Touba mu doon loo xam ne dañoo bëgg bu noppee maanaam dëkk bi kenn dootu wax ni amatuma fu ma fajoo di gàddaay di dem ci biti wala ngay dem ci àll ba wala yàlla di def li gën ci yow. ci ndimbalul Touba ci kanam ay njaboot yu bari di yeewoo ci dëkk bi ñu leen di jàppale ci fànn yu bëri. man la Ndeye Rama Ndiaye dama fi amoon problème bët ak problème tànk ndax dama yore suukar jabet léegi nag ma demoon ba muur sama ñaari bët yëpp gisatuma fu ma dem fu nekk dañ ma fa yóbbu léegi bi ma déggee waa ca kanam ma ñëw. wax leen samay soxla ma expliqué leen ne leen damaa bëggoon ngeen jàppale ma ñëpp ñu obligé wu jàppale ma ci ba ma yoraat sama ñaari bët di ko xool léegi nag loolu moom man Touba ca kanam aw ma seen fay keneen ku man di doon nag ku liggéeyal sañ Touba rek war ngaa mën a ñëw bokk ak ñoom mbir mi misaal bi fanweer ak ñaar di liggéey ci biir jumaa ji ñu leen di taxawu saa su ne di leen xamal ne jëf yi mi ngi agsi bu baax a baax ci mboolem ko yëngu ci jumaa ji rek seen jëf seen loxo mi ak ci moom ci weer wu nekk kon daal li ñu bëgg a xamle foofu rek mooy sas boo xam ne ko topp nga yàlla ak liggéeyal ji ak liggéeyal Sëriñ te xalaat ne ko jaare ci ñii li jëngu ci biir jumaa ji dana ak ci sëriñ bi ñu wax ne loolu la si na ci noonu weer wu nekk loolu ngeen di joxe ngir mu jëm ci jumaa ji mi ngi agsi bu baax a baax baax njàngum alxuraan ku ne xam na sëriñ bi ni mu ko fonke woon Tuubaa daara la man si na wax ci gàtt rek moom daara la sëñ bi bi mu koy sanc li mu ci jubloon mooy fu mu mën a làqatu ba mën a jaamu yàlla mën a defaru defar ñi ko topp maanaam fu mu leen mën a tarbiya kon kon daara la kon nag képp koo xam ne jóg nga di ne da ngay liggéey sëñ Tuubaa tàmbalee ci daara ya taxaw leen benn taxawaay bu rafet bi kon la ngay wax dëgg la. tànn nañ ñaar fukki daara ak juróom-ñett ci dëkk bi tànn woo xam ne tànn wu maandu la bu jub la bañ leen tànnee ba noppi ne fenn fu ci ne dem nañ fa yebal fa ay ndaw yoo xam ne xool nañ ba gis lañ gën a ittewoo ñoom daara ñu seet ca lañ ca mën ñu def ko ca def ci somme bu am solo ngir defaral leen fajal leen seen aajo yooyu muy lu am solo loo xam ne ñoom Touba ci kanam ñoo ko fi njëkkee ba Touba ba léegi mosuñoo gis mbooloo moo xam ne jóg nañ di taxawu daara ji taxaw daara taxaw bu am solo nii te ku ne xam ne daara mooy alali seen Touba dëgg ji nga xam ne moom la gënoon a fonk kon ñoom li ñuy wax loolu rek bu fekkoon ne ci la yem itam eh, ànd ak ñoom daf koy daal di koy daal di jar. lu jëm ci wàllum cet gi ba tey. ay wanag ñu taxawal ko ci wetu jumaa ji loole yépp gën a jàppale taalibe yi la. yi sant bu baax a baax a baax waa Touba ci kanam ci lii ñu defal ndax tey jii boo ñëwee ci jumaa ji. bi li ko wër lépp amul benn benn wana boo xam ne mën nga fi ñëw mën fi faj sa aajo mën a yeeslu mën a dem ci jumaa ji kon lii bu ko Touba ci kanam defee ngeen gis ne fii ni mu meloon ak ni nga xam ne melokaay bi nga xam ne meloon na ko ñu ñëw ko. war fee defaraat wane yii nii kon dañuy sant Touba ci kanam bu baax a baax. ku ne xam na ni Touba Mbacké dëkk la buy yokk ci ab yaatuwaay ci limub askan wi gox yu fasantikoo yi ne ci dëkk bi ñenn ñi amoon nañu jafe-jafey ndox boobee jafe-jafe. ñu bari ci ñoom weesu nañ ko. man soxna Fatou kan dëkk sanc Daaru Rahman sonal nañ torop ci ndox am nañ ci fukki at ak juróom di takk sareetu mbaam di rooti di yanu wax dëgg yàlla am na bañ ko commencé léegi nekk Touba kanam ñu indi ñu ndox boobaak léegi noppal nañ kenn jógatul fajar kenn yenoo tut kenn defatul dara ñu ngi leen sant ñu ngi leen di gërëm. lu aju ci gën a seetal dëkk bi juróomi wootey mbalit yu mag ñoo fi wuutu sareet yi daan dugg ci biir kër yi di an mbalit yi askan wi daan dund boobu jafe-jafe te jamono ji seenu naqar dëddu na leen. man la aw Touba Diop nekk fii ci Touba Paleen. yéen waa Touba ca kanam kat ngi leen sant bu baax di leen gërëm ndax dañ daan am suñuy mbalit sareet yi tey dañuy ñëw tey duñ ñëw yéen nag bi ngeen fi indee juróomi kat yoo mbalit suñuy mbalit eh, dëkk bi dafa set xanaa kay ngeen dooli ko bu baax a baax. ba tey ci lu gën a ñoŋal nekkinu askan wi junni làmp taxaw nañu ci lañ ci bëgg gën a leeral mbedd yi. ci Touba ci kanam. bi ngeen àggee nag ci euh, kër gu ne ngeen bëgg borom ba def ab làmp ci buntu këram boobu xalaat moom bi ma ko déggee moom ci laa gën a yéemoon ak ci li ngeen dox lépp làmp yi dugal naa ci téeméeri junni ngir leer gi ngi ngeen bëgg leeram ak ci laay bokk ci leer gi lay dund ci leer gi lay dund ci leer gi lay dund kon war naa ci def dara. Euh, seen tur yi dafa am solo. tur wu doy waar la. bu doy a doy waar Touba ci kanam. tur wu doy waar la. lu ngeen message rek naa ko sasoo. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. waaw leen góor jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf tubaarkàlla ah tubaarkàlla géej bi moom tubaarkàlla ah, alhamdulilah kon xel daal ci bu baax a baax naka jëkk mooy tàmbalee rek la si amoon yaakaar yaakaar dana wuteeg kuréel bu mos a jóg jëm ci loolu yaakaar naa ne wut moom. alhamdulilah alhamdulilah. moom de moom de ah ngeen bëgg ah, da ngeen di da ngeen di mën a yor dëkk bépp ak li ci war fu ngeen bëgg a àgg màgg rek dina fàgg incha allah <laughs> waaw waaw waaw. sëriñ bi nee na Touba ca kanam moom ci la bokk bañ ko sosee rek la la la daa ci bokk. dama dama dama cee sama bopp fukk juróom-ñeent ñoo xam ne ñu eh, murid sarax doon. mu ne moom fu mu fekk liggéey Serigne Touba bëgg bëgg na caa bokk. mu daal wut juróom-ñeenti murid sarax. yoo xam ne juróom-ñeenti murid sarax yoo xam ne am na yaqin ci seen pësteef. te naa am lott nañu ci li ñuy laaj ñu joxe ko. te te mën naa am lott nañ ci lii ñuy laaj ñu joxe ko mu ne ñooñu tàmbale na ci ñoom juróom-ñeent ak moom mi mu fukkeel leen. mu ne lu ñuy laaj taalibe yëpp rek moom dana ko dana ko def. dana ko def dana leen ko defal. te yéene yëpp itam. te yéene ci taalibe yëpp itam. suñ borom gën leen a gàttandoo ak tawfeexu sëriñ bi. lépp gën a yomb. lépp gën a yomb. lépp gën a yëwén. lépp gën a barkeel. noonu rek la demee. lépp waaw loolu yéen waaw est ce que waaw waaw. coxéel def na waaw yooyu li mu leen di wax déggal ngeen ko bopp. ñaan leen ci biir laa bokk. wax na yaakaar ji am ci mbooloo mi. kon jox na ndigal taalibe bu ko man loo ci mën nga jëf ko. moo ko wax ci làmb ndax jëf ju àgg Sëriñ Tuubaa la. kon nag ñu ngi leen ñu ngi leen sant ci tuur sëriñ na ñaan itam ci barke Sëriñ Tuubaa. naa lii ngeen am te dara génn ci dëkk yi. yàlla na ko suñu borom mottali. yàlla na Sëriñ Tuubaa defal ndimbal. ba mu àgg fa mu jëm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa Touba ca kanam di moomeelu bépp murit wajalilaayi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat